قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أسدا وكن محيشا لنا من شر في عسد مع شر فم وشر الحين يا الله وشر الشهر وشر الخلق إنسهم مع جنهم وشواد الشم يا الله mbokk jullit yu baax yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi rafet la bu baax suñu ànd ak yéen saa su ne ci liggéey bi ak yitoo gi ngeen yitoo seen seen bii di Talabul Hilmil Asraar ak bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel yéen leen ciy dugalal ñuy wax ne ngeen gën di góorgóorlu ci abonné gi abonné bu baax mooy waral gépp vidéo boo xamante ne dugal nañ ko rek te koy mën a jot automatiquement incha allah ginnaaw loolu tey ñu bëgg leen a jàngal benn jafe-jafe boo xamante ni bu bari la lool ci jamono ji ñuy dund te mooy liggéeyante ci suñu biir liggéeyante ci suñu biir naka la mën a def ba loolu dañ waaye pour mu dañ nekk du yomb ndax suñu boroom dafa bind ci nit ñi am ñoo xamante suñu moom li ñuy wax soxor dafa nekk ci ñoom yàqal nit ak lekku laax moom la ñu yemale xëy dem di wut leen dunde war dem wut leen yokkoo ci seen wàllu àddina xëy dox ci jéem a fay nit war jéem a yàqal nit leen ko gënal day am fépp nag day am ci même dangay nekk ci famille sax am ñu lay xeex ci biir famille bi wala nga nekk ci gox lay xeex ci biir gox bi wala nga nekk ci koñ am ñu lay xeex ci biir koñ bi wala nga bokk ay nit di defandoo ak ñoom le dara moo xam équipe de football la ngeen xeexante seen biir wala ngeen bokk même li ngeen di xëccoo ngeen xeexante seen biir loolu na képp koo xamante bëgg na ci mucc aw yoon lan la ci jàngal wala ngay dox nit topp sa ginnaaw pour bëgg a tibb sa tànk wala nit sànni la kort wala nit def la nangam nangam loolu nag képp ku ci bañ a mucc dañ lay jàngal loo xamante ni euh, lu wér a la képp koo xamante ni suñu borom dogal na mu def ko yàlla mën na ko ci defal tawfeex te mooy doom yi kay fa sa jëmakin loolu nag fan yee am na ku ñuy woowee borom xam-xam doon def vidéo ma dégg mu doon indi tur yi tur yi nag lim man bari na xam naa te dañ ci ñëwee ci fànn gi waaye lim man bari na waaye jum na ci jum gu rëy rëy rëy am nu leen tudde am nu leen woowee loolu ak njuumte la moo tax xam-xam daal gëstu la laaj wala lépp loo xam ne ni amoo ci xam-xam nga nga nga maanu ca lii doobi kay fase jamakin la te nga fase jamakin ñëpp xam ne ci fayat xadal kitaab la génne ci diggante maliki yawmi diin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin ci lañ ko tëggee moom nag liñ ci wax sax ëpp ëpp ëpp la moom wax dëgg fa yàlla xam naa dañ leen ko bañ a jot li waaye xam-xam daan xam-xam la tudd boo bëggee bool li ci bokkut tuddatul xam-xam kon lii képp koo xam ne nii bëgg na képp ku tibb sa tànk bu fekkee daf laa def sa tànk bi war a métti war a war a néew buy teg ci taal wala buy teg fii tànk buy teg rek tànkam di néew yi moom. bépp liggéey bu la nit mës a liggéey lii boo ko bindee sangoo ko mu retourné wu ci moom ak ku mën a doon ak lum la jege jege jege jege jege ci mbokk ak lum la sori mbokk ak lum doon sa xarit bépp liggéey bu mu la mas a def bu bon liggéey bu bon rek la ñu waxuñu liggéey bu liggéey boo xam daf lay yàq képp koo xam ne na laa liggéey soo sangoo lii. soo defee lii nii la ko wax nga jëfandikoo ko liggéey boobu daal dellu ci moom te képp ku la liggéey it nag euh, pour le moment nag boo ko jëfandikoo ba pare képp ku la liggéey it moom day dee dee ku la liggéey dee mais nag liggéey yi passé yi moom yëpp day retourné wu ci ñoom waaw yi liggéey yi passé soo koy dee nga jëfandikoo ko te boo ko boo ko sangoo ñi nga xam ne des na jege nan la nga xam la ñu mas a def te def dara. ñoom ñëppay tëdd feebar ñoom ñëpp ñëpp ñëpp da gis ñuy tëdd feebar rek da gis ñuy feebar rek waaw gis ñuy feebar rek waaw il ñu ci xam dara dana ñëw jéggul la ñu ci xamul dara moom dana leen sonal boo leen jéggulee mu dañ kon lii ngay bind kaslahun yalasun fahkalamun shakaalun jamhum makalun makalun benn bu ci ne yaa ngi koy bind 77 fois nga koy bind benn bu ne benn bu ne yaa ngi koy bind 77 fois juróom-ñaari baat bi waaye bu yàlla dogalee da nga jëfandikoo ko comme nii ñu la ko waxee koo xamante ni liggéey na la liggéey ba dana dellu ci ku la mos a liggéey liggéey bi dana dellu ci koo xamante ne liggéey na moom ci bu gaaw day faatu ci bu gaaw a gaaw mhm. ci bu gaaw a gaaw day faatu kon lii danse tey danse mooy liggéey doomu aadama moom rek mooy danse ndax nit kenn waru ko liggéey mhm. kon da ngay fexe boo bindee lii ba pare da ngay wut juróom-ñaari xasixa yi juróom-ñaari xasixa yi ngay wut boole kook saafara si boole yëpp ak saafara si tàngal ba mu tàng nga tegg soo ko tàngalee ba tàng nga tegg teg ko ba teg ko sa yaram ñeme ko nga sangu ko teg ko sa yaram ñeme ko nga sangu ko bu njëkk bi rek boo ko tàngalee baax na si de bu neexee tàng mu neexee bul tàngal waaye juróom-ñaari fan nga koy sangoo te boo koy sangoo yaa ngi koy sangoo guddi ba guddi hmm. waaye bu yàlla dogalee nga def ko yàlla dangay gis sa yaram ak woyof gis sa yaram ak euh, bàyyindiku woyof ak yaram te képp ku la liggéeyee de moom dina dellu moom moo xam lu la nit parce dafa dëddal la ak nit yàqal la sa diggante ak nit def la sa yaram fu mu toll muy diis ak lu mu mën ni doon même boo paree sax boo mënoon wut lu mën ñaari guro ñaari guro benn guro bi nga bàyyi ba ab oto di jàll oto nga taxaw ci télé bi nga feex ba sànni benn guro bi ci diggante pono yi oto yi jaar ci benn bi nga dem ba ci armeel ari armeel nga sànni ko benn bi nga wut ak gumba nga sarax ko ko ñett lay doon <coughs> benn bi nga jox ko gumba allahu akbar loolu moom boo ko defee boo ko sangoo pare def sarax boobu mm, mm, xam nga kii daa gumba kii ci diggante oto la jaar kii kii ci armeel lii lépp nag ci protection rek la bokk yow defoo kenn dara de ci aar sa bopp ci nga toll ku la liggéey ci jour ba liggéey buy jéggi oto di ko fiir te bu ko oto ci armée la jëm beneen bi ñett yi benn dal ko ci benn oto fiir ko wéy laa mu gumba wéy laa mu dee ci journée bi bu bu jéggu tëli ci journée bi dina gumba ndax dangaa sarax benn bi gumba sarax benn bi ci tëli <clears throat> yóbbu benn bi ci armée suy jéggi tëli ci journée bi oto di ko fiir su jéggi tëli ci journée bi gumba dana gumba wii laa mu faatu lii dansa tey dansa mooy laal doomu aadama laal doomu aadama moom wóorut ku xam waru koo def ku xamul dara waru koo def ndax ak tooñ loo mën a yor lu mu dëgër dëgër dëgër boo tooñee yàlla du la faral jërë ngeen jëf